wax dëgg yàlla ñoo gën a yaru ñoo gën a teey ñoo gën a calme ñu ngi liggéey ñoo ëpp yërmande ñu ngi liggéey te ñoo gën a ñeme liggéey parce que ñoo nangu jàngale yonent yàlla Insa dëgg la yonent yàlla Insa dafa jàngale yërmande mhm. dafa jàngale maandu mhm. dafa jàngale justice ak équité mhm. dafa jàngale toppatoowante solidarité partage lii mooy jàngaleen challenge sax ak pardon te ñoom ñu dox ci nag ñu ngi koy topp bu baax ah, nga xam ne ni kii mooy suñu imam lum ñu andil la ñu war a topp mhm. moom mooy moom mooy moom dafa leen nekkat man maay yoon bi man mhm. maay seen salut mhm. kon nit ki soo amee imam da nga koy topp ñun tam ñu am imam mu ngi tudd yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñum neen mooy imaamu yonent yëpp yàlla daf ko tàgg si jikko bu rafet mu andi jàngale bu mucc ayib andi ko Euh, la république dans son ensemble nanguwul yoon ci yàlla Muhammad comme jàngalekat. nanguwu ko tam comme modèle. donc nanguwu ko nanguwu ko ndaxte suñu mm-hmm. constitution si moom. Mm-hmm. article 4. Mm-hmm. dafa ne sax képp ku bëgg sukkandiku si enseignement yoon ci yàlla Muhammad amoo droit taxawal fi parti maanaam idéologie Muhammad ñu ko si république. dañ koo tudd nommément. toutes les religions. waaw toutes les religions la ñu wax. waaw ah, yonent Muhammad tamit yonent yàlla Muhammad moo fi ëpp su amee quatre quinze pour cent taalibe wala quatre vingt pour cent taalibe. Mm-hmm. ñu ne yonent bi dafa am dimension politique. il faut qu'on dise. Mm-hmm. ñu ne waroo am idéologie bi nga basé ci yonent yàlla Muhammad. bu la neexee da nga sukkandiku ci Marx. Mm-hmm. wala nga sukkandiku ci Keynes. wala ci Malthus waaw mais pas Muhammad nii Insa. Insa sax y a un problème donc a un grand problème. <laughs> donc donc jullit ñi kon <laughs> dañ leen déconnecté ak seen diine. <laughs> bëgg leen gëmloo ni diine bi si jàq ji la yem. te diine l'islam yemul si yàq suñu lépp la jël maanaam naka ngay politiquer naka ngay dundee soo yeewoo la nga war def naka ngeen di sëyee naka ngeen di lekkee naka ngeen nekkee njaboot islam bàyyiwul suñu dara léegi nag ñàkk formation ci islam boobu ñu mm. formé suñu doom yi mm-hmm. moo tax amuñu ay modèle tamit yéen ci Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu ñu ko defoon rek mm-hmm. en tant que musulman chrétien mm-hmm. dëkk bi mooy raw si mooy raw si àdduna bi ndax on de parfaits citoyens yoo wax dëgg yàlla ñuy jub. Mhm. maandu. Mhm. ndax ñu ngi bàyyi xel ni sama borom laa nekkal. Mhm. balaa balaa état bi. balaa état borom bi moom mooy. moom da ngay xam ni ku nga xamante ni foo ne mu ngeeg yow. loo bëgg a def xam na ko loo bëgg a wax xam na ko ndax ci. Eh, eh, waawam ngay dox eh, dañ lay wax ni mën nit jaam ak pexeem waaye yàlla ak dogalam kon loolu tam baas la doon doon ci ñun bu am solo waaye mm. mu mel ni dafa mel ni si si li nga xamante ni moom la ñuy waxtaane fi muy institution yeeg mm-hmm. yooyu dafa mm-hmm. mel ni dañ ko si dàq malheureusement comme ni nga wax mm-hmm. waaye ma def ni warta mën a ne ndax ñun ku fi juddu ñu yóbbu la daara balaa ngay jàngi école book loolu moo amoon peut-être léegi la ñu yóbbu xale yu jardin avant ñuy dem daara mais ñun ku juddu woon dañ la doon yóbbu daara donc éducation de base boobu bu fekkoon dox nañ si ñun kon ku nekk si ñun lanu defoon si yow dina des si yow mais malheureusement dafa mel ni li ñu defoon si ñun ñu ngi koy jël di ko weccee ak leneen mhm. moo ñu sonal mhm. euh, mu mel ni am na lu ma bëggoon ñu waxtaane ko comme xam naa ni di nga xaw a géej comme da nga mhm. ko tegale macha allah ba ma la soxlawaatee woo la waaye dafa am ñaar yoo xamante ni xaw ma lu tax boolewuñu ko ci institution yi ndax sénégalais daf ko commencé ñàkkal fayda te muy base te muy loo xamante ni ñoom ñooy yore suñu sécurité. Mhm. muy lu mel ni police lu mel ni gendarmerie lu mel ni armée. Mhm. ñu commencé di leen banaliser. Mhm. commencé di dégg wax ci seen biir. commencé di di gis yoo xamante ni. changement de comportement si si nit ñi. envers ñoom. ñu leen di jiiñ lu ne di mu mel ni léegi yeb nañ leen daal. te je pense que yooyu waroon nañ ko boole ci institution yi. waaw euh, am na solo trop parce que suñu xoolee institution yi lu ñu wooyee le gouvernement. maanaam l' ensemble des ministres. mu ngi ci ci institution yi la bokk. Mm-hmm. ak tamit les cours et tribunaux ñoom ñëpp tamit. institution lañu léegi nag suñu xoolee l' ensemble des des le gouvernement dans son ensemble. Euh, le ministère de l' intérieur. mu ngi ci biir mu ngi ci biir mm-hmm. parti la ci biir euh, gouvernement. le ministère des forces armées tam parti la ci gouvernement te dafa mel ni corps yi nga tudd. muy police gendarmerie ak armée mm-hmm. ñu ngi si euh, biir ñaari ñaari ministères yooyu. mu xaw a am benn genre euh, doyadi. Ah. bi nga xam ne mën nañ koo seetlu euh, si jamono yi tey euh, mun naa ne facteurs yu bëri ñoo ko ñoo ko def mm-hmm. bi si njëkk mooy dañu gis ne au sein de l'armée si moom ak au sein la police. dafa commencé bëri ay scandale te jamono bu yàgg ba presque daaw si dégg benn scandale waaw kenn daaw leen dégg woon ah, euh, am ñu yaakaaroon ni amuñu benn problème voilà aujourd'hui avec les médias avec les réseaux sociaux dafa tax léegi yaa benn ubiquité de l'information chaque instant lu xew rek à temps réel ñëpp koy waxtaanee muy am ci biir ñi nga xam ne dañ ci nekkoon di génn di bàyyi di démissionner démissionner di metti ñi ak ay wax ay capitaine ay lieutenant ay c'est on on naan ay commissaire mm-hmm. corps yooyu muy commencé am ay mouvement ñi nga xam ne dañu naan tam ñoom ñoo bañ donc si biir loolu ñu gis léegi dans la rue parce que tamit la sénégalais instant yi mhm. dafa am benn mépris euh, sur euh, les policiers et pas la police mm. mais sur beaucoup de policiers lu tax loolu euh, dama koy xoolee xool ci confinement bi maanaam toroxal bu ñuy toroxal doomu aadama jàpp nit di ko dóor di ko filmer di ko def yu ñàkk solo ci kese dañ la bëgg a protéger contre une maladie mais dafa jara toroxal doomu aadama di ko dóor bay dagg yaram bi di ko filmer et les policiers euh, ils se illustrés par banditisme en réalité parce que pour man quelqu'un bu ñu tere ne couvre-feu moo parce que jamono yu couvre-feu la vingt heures kenn amul droit génn la la lii la la lii la yoon wax mm. vingt ba six heures du matin kon képp ku génn après vingt heures violer la loi ku viole la loi dañ la war a jébbal ki xam ne moo war a àtte la loi et c'est le pouvoir judiciaire police kon rôle am mu ngi yemoon rek ci képp ku viole la loi euh, kon su ma la déggee ci période confinement boobu. Hmm. ak ni ñu waxoon ni bu ñu dajaloo. Hmm. dañu waroon di jël nit ñi di sol ci pañe à salade bu mu fees. ñu dem hmm. leen ci biir commissariat bi. oui loolu tamit. Euh, euh, nit yi bëriwuñu woon c'est xam nga dafa am li xam ne une loi. même en créant une loi toute pour être violée. loi mënul ñàkk violation moo tax sax ñu créer ay tribunaux pour mën a àtte les écarts par rapport à la loi écart bi am na niveau bu muy nekk niveau bi dafa insuffisant maanaam aayul daal benn nit bu génn force urgence ne la man wax dëgg maa ngi jégal. dama demoon mais xale yu koñ bi yëpp bu nu dajaloowee. ñëw taxaw. Mm-hmm. di fecc di braver policiers yi di fecc di football. di leen wan ni ñun. faalewu nu leen teg fenn faalewu nu leen. effectivement ce que loolu réaction la man nag je vais je vais aller plus loin que ça ouais. parce que man y une action y tam une réaction mm -hmm. le dañuy xool la réaction on le condamne mhm. mais la réaction a été impliquée par une action lan la police def balaa boobu dañoo jàpp ni si di leen dóor ba pare filmer leen dugg leen ci réseaux sociaux yi vidéo yi di daw est-ce que euh, ñoo ko filmer est du nit ñi taxaw ci seen balcon yi waaw am si ñooy filmer dugal ko parce que police policiers yi mais am na si am policier di ko filmer entre copains di toroxal nit na di maajloo ko jox ko buum di ko dóor filmer ko entre copains di waxtaana ah, yëpp tam mu ngi daw mais c'est vrai que bi moo ñaaw acte bi dafa dafa minable mhm. nga jàpp ki nga xam ne moo lay fay parce que le policier mhm. euh, son premier employeur ki nga xam ne mooy patron mhm. moo tax muy fayeeku c'est le citoyen kooku lay liggéeyal kooku di ko toroxal wax dëgg yàlla du yoon su xamul da ko war a xamal ndax parmi les renseigner fait partie des missions de la police maanaam police dernière mission mooy mooy la coercition maanaam fitnaal la dóor la mooy dernière mission mais daf la war a informer daf la war a éduquer daf la war a renseigner yi ñu la ñuy jàngal policier à l'école police donc bu ñu jàppee doomu aadama nag leen toroxal ñu gis ay policiers yuy rey ci ay manifestations yu ñàkk solo daaw ci benn année kese rey lu mat quinze personnes yoo xam ne ay manifestations yoo xam ne yii dañoo foncé ci di leen jàpp si poste police. ba ñoom Pape Sarr ak booy wax police police ak gendarmerie la ñuy police kese bii police kese la. parce que moom mooy moom mooy yor la sécurité dans les dans les jàpp nit yóbbu ko poste de police yu mel ni police port ak yëpp di maas waa ji ba waa ji dee ci biir si biir case police c'est que lii ba pare moor yi yëpp c'est resté sans punition. Mm. jàpp ñu ko def tëj ko. jàpp ñu ko rajee ko génne ko police. Mm. donc lii yëpp ay la yoo xam ne su boolooyee. Mm. askan bi dafay mujjee euh, xam ni. kii war ma protéger mhm. war ma sàmm arme kii man moo may toroxal te moo may rey mhm. kon kii est-ce que yelloon sama respect mhm. donc lii moo andi léegi na yow boo toogee en tant que ngay gis loolu lan nga ciy wax man damay gis ni y a un déficit d'éducation des deux côtés dama gis ni on n'a pas éduqué convenablement ce peuple là ba muy braver ay ay ay les représentations de l'État ndax war naa am benn respect bu considérable par rapport aux représentations de l'État mais gis ni institutions yi tamit Euh, dañoo éduqué wul correctement seen travers ma dama dama dama xool école police samay joxe exemple école police kese. Mhm. def nañu concours daaw pour recruter parce qu'ils avaient besoin de nombre. Mhm. mooy recrutement yu massif yi. Mhm. on a fait passer des gens yoo xam ne moyenne deux la ñu am ñi nga xam ne ay anciens bandits lañ. ils sont partis wallahi azim li wax nii xam naa ko parce que dama dama tànk école police. Hmm. donc je à la salle de l' police moo nekkoon sama salle d' donc hmm. saalu boxe ku nekk école police ku ñuy wax maître Ndour moo nekkoon sama maître ñun dañu def équipe kickboxing. Hmm. dañu doon def boxe américaine. Euh, salle boobu laa nekkoon mais pour dire que. on a recruté ba recruté wallahi ay anciens bandits ay truands ay nit yi bi. jariñu leen lu may. Euh, prendre une revanche par rapport à la société wala def lu leen neex jàpp ils sont au-dessus la loi. Hmm. dañoo nekk dëkk bi nga xam léegi ba ci suñu oto yeeg yëpp dëkk bii mooy dëkk bi nga xam ne homme de tenue jàpp na ne il est de la la loi il gis ki nga xam ne dafay wut oto amul këyit amul benn papier waaye jàpp na ne su jëlee mbaxane policier teg ko ci kanamu oto bi doy na ko papier kenn du ko arrêté. kenn du ko arrêté. et lii c'est c'est grave soo demee dëkk tubaab bi un policier tubaab ñemewul def Euh, y a une casse de policiers bi xam ne dañuy nekk si bi lu leen neex la ñuy def fii Sénégal mooy dëkk bi xam ne bu ñu affecté circulation dafay jubilé day kontaan. <laughs> te pourtant si yeneen pays punition la. punition la waaw ah, buñ la la buggee punir da naan la. yóbbu nañ la circulation fii da lay ku nekk. ne gars yi dañu fa delloo parce que 1000 francs 2000 1000 francs 2000 apprenti yi nga waroon jox cër respecté wuñu la. Hmm. da ngay dugg oto des fois il nous arrive nga dugg oto ñu taximan bi ne ah, kii de xam naa kii tam damay samp rek dañu dem ba créer moo samp. Ah. samp mooy nga jël 1000 francs jox ko waa ji. donc euh, quelqu'un bi nga xam ne citoyen bi ñu formé moom tam yar ko. Mm-hmm. Mm-hmm. est-ce que samp dina am. waaw li nga wax nii moom. Euh, parce que bu corruption amee rek. Mm-hmm. yaa corrompu et corrupteur. toujours il faut y a toujours un corrupteur. ñoom ñaar yam. ñoo yam ñoo yam képp. bu ñu jàppee kii rek war nañu jàpp ka sa des. entièrement mais est-ce que bu ñu yanu yaru woon ñu nekk citoyen yi ñu war a doon. moo tax ma ne est-ce que dinañ samp wala dinañ sempi. moo tax moo tax si wàllu googu. Mm. may wax ne chaque fois. Mm. suñu dimbaloon gars yi jàngal leen seen diine. kon duñu corrompraate dama koy jox exemple man sama oto. Mhm. sama sama chauffeur. Mhm. musuma police musuma arrêté ba ma génnee xaalis fay ko. sa ci sa sam ne da nga koy sax attesté ma. yow da nga da nga koy war a rus. yow Sénégal bi war nga koy rus chauffeur bi dafa ma wax chaque fois ne ma mais. Hmm. bàyyi ma jox ko 1000 francs rek ma ne ko non je préfère fay 6000. poste police et pourtant xam naa ne defuma effraction. mais Sénégal mooy ah, dëkk bi nga xam ne da ngay def effraction de. pourtant des fois des fois oui des dañuy def infraction na mais des non parce que xam la moo garaaw. Hmm. on a donné un policier benn prérogative bi nga xam ne dafa mel ni moom sa parole parce que dañuy wax ne c'est un agent assermenté dafa waat ba muy jël fonction kon kii mënul fen kon lépp lu mu wax pour les policiers les gendarmes les ñoom ñëpp les les les les les douaniers ñoom ñëpp waaw ñoom ñëpp seen parole lu ñu wax te ñu si bëri nag mm. c'est pas de c'est pas de bonnes personnes c'est pas des personnes intègres dañuy fen mm. su dañ lay wax carrément ne la société bi lañ génne très bien waaw parce que société sénégalaise moo moo moo moo dañ lay wax carrément dama lay coller motif policier bu la bëgg jàpp da lay jàpp tey rek sama benn xarit jaraaf sànq mu wax ne ma dafa teg bagage ci kanam otom moom kese. ak otom mu teg bagage si chaise am. policier bi jàpp ko ne ko bagage synthétique. kooku man def nan ma ko daf lay wax ni la mauvais aménagement de bagage. sama valise laa jël teg ko sama ginnaaw oto. ki nga xam ne sa oto bopp yow kese mu jël man sama oto bopp man kese mu ne ma léegi lii mauvais aménagement la ñu yóbbu ma commissariat ma fay ma jël valise bi def ko ci kaw xam nga lii yëfu maa tey la Ah, dans un pays pauvre nee na nu bagage warul nekk si biir oto mais c' est pas sérieux am sa mbuus nga am sa oto c' est pas li nga xam ne <laughs> euh. ça frise même des fois le dangay ngay koy xool da ngay waaru ne mais ban dëkk la mais mais fan la ñu egg nag hmm? justement ban dëkk la ñu nekk parce que est ce que hmm. euh, euh, relation yu tàndu yooyu ñu am suñu biir hmm. ñu koy seetaan nii. Mhm. banaliser ko di ko xool. Mhm. muy màgg. Mhm. parce que affaire bi palier la lu ndaw la woon. muy gën a mag. di gën a mag. di gën a mag. dina dem ba benn jour. dina ëpp loxo. exploser est-ce que ah, il n'est pas temps. ñu toog nag ñu former waat na euh, formation citoyenne. bu dee ñu góor ñi la xaw ma dañ leen di yóbbu armée force. obligatoire xaw ma lan lan ñu war a def. en tout cas. on est peuple boo xam ne. citoyenneté. patriotisme mhm. civisme mhm. war nañ ko defaat ci ñun totalement nan lañ ko war defe nag gannaaw bu ñu jëlee diine bi mhm. jiital ko si ñun après lan la ñu war a def nag pour yar na defe naa nag yar yooyu nga doon wax eh, choqué la sànq est-ce que du moo des ci ñun man dama jàpp ne soxlul sax dóor pour defar lan la ñu war a def gis nga may joxe exemple da ngay xool dëkk mel ni États-Unis le policier américain bu nekk New York taxaw ah euh, gis nañu fan yi lu ñu def ñoom it te gënul baax. policier bu nekk fii Sénégal. Hmm, gënu koo jub te gënu koo baax. Hmm. Euh, waaye da ngay gis ne hmm. policier bi moom ñemewul sàcc ndax jox nañ ko badge bi nga xam ne badge bi am na caméra. wala nekk sur bi xam bi dafa am caméra. waaw ñoom dafa am caméra suñ ko joxee euh, day am problème dinañ ko gis ñu gis ko di ko am problème moo tax du xalaat nangu ñu koy corrompre donc aujourd'hui mhm. il y toujours benn force boo war nekk ci kaw bi nga xamee mooy exercer pression pour nga bañ a dëng ndax nit yàlla ko bindaale ak tuuti dëng alxuraan dafa wax ne euh, wa nafsin wa ma sawaaha fa la xamaha fujuraha wa taqwaha yàlla dafa la bind booy la la caay-caay booy la ragal ragal yàlla ñaar yi ñaar yi c'est deux principes très normal ah, ñun ñëpp noonu la ñu war a mel waaye nag mm-hmm. euh, éducation li tax nga li tax nga li wax am solo mm-hmm. suñu jëlee aspect diine boobu nga xam ne pour man moo war a jiitu ci doomu aadama ñu mm-hmm. euh, tëdd sax comment bu bu 2S animateur bu doon def euh, le grand rendez-vous il a il a fait un livre impressionnant si tuddee ko jàmmi Sénégal hmm. donc ci livre boobu mu ngi joxe solution yi xam ne si naka ñoo réformer l'école pour hmm. école mën a jouer rôle hmm. man dama jàpp ni moom li mu joxe solution kese wax dëgg yàlla doyoon na sëkk suñ jëloon loolu boole ci euh, armée obligatoire bi nga wax ah. ndax dëkk yëpp ay ba ci ay israéliens yëpp mais c'est que dafay tàggat doomu aadama parce que bu doon quelques mois sax xale yi ñu yóbbu leen wallaay dina baax ñu ñu defar wala un waaw c'est que. defar leen français gi nii. da ngay gis xale tubaab bee xamee xale bu xamadi la. Mhm. day taxaw sax ne maman tu mens. wala papa nangam. commencé te xale bi ci xale lay nekk réew. Mhm. waaye balaa muy màgg. Mhm. ba suy dem ba dugg quartier ba génn. xale bi day nekk benn citoyen bi nga xam ne. day bëgg dëkkam du saltal dëkkam du saw ci mbedd bi. parce que lii problème mu la ak télé ak armée. ñett yi dañoo war a bokk benn langage. pour mën a produire un bon citoyen fii nag Sénégal nag wax dëgg yàlla. on n'a pas fait ça. amuñu ce sont de grands patriotes parce que man police yu bëri yu ma gis ci policier fii nii mm-hmm. sincèrement dans un pays sérieux ils devaient pas porter l'uniforme war ñoo nekk policier mm-hmm. donc euh, ils sont de très mauvaise foi ñoom seen bopp defarooguñu mm-hmm. te dañuy wax chaque fois ni faaqidu sey laa yu at yi mais mais mooy li ma wax rek suñu société bu yaroo ñi ciy génn yëpp dinañ yaru dëgg la mais bu fekkee suñu société nii la mel ñu jël ñenn rek di leen critiquer bàyyi su bopp parce que ñun la Mhm. policier bi si kër la génne. effectivement kër bi mu génnee Sénégal la nekk. dëgg la euh, gendarme bi si kër la génne. Mhm. ministre yi ñuy mhm. wax. ci kër lañu génne génnee bi ci kër la génne. ñun ñëpp defe naa bu ñu jiitaloon. njëriñu réew mi. jiital sunu xel. dëgg jiital. Euh, xaw ma nuñ koy waxee suñu citoyenneté mhm. bëgg suñu réew mhm. comme ni ko yàlla waxee nee na mhm. bëgg sa réew ci jaamu yàlla la bokk watani wallaay mm, minal iman donc bu ñu jëloon yooyu yëpp ñu inculqué nu ko dee xale te bàyyi rek jaf suñu bopp da nga war a tekki da nga war a fés da nga war a am da war a parce que def naa ni ñu jiitalee matériel si ñun dafa ëpp buñ ko jiitalee woon mm-hmm. yaru dëgg ak qualité kay valeur ak valeur mm-hmm. da ko bañ saa ba wax nga ko mm-hmm. yonent bi si jikko lañ ko tàggee waxuñu ko sa eh, diwoy sa baay dëgg la waxuñu ko diwoy sa ndey waxuñu ko sa yax bu rëy nga bokk comme ñun ni ñuy wax dañ koo wax sa jikko lañ la tàggee ñu ne dafa ñëw pour mottali jikko yu baax yi dëgg donc ñun koo fi gis soppe mm-hmm. yeneen soppe bi mm-hmm. loolu rek comme ni nga wax doyoon na mm-hmm. ñu am yenn valeurs yi ba corruption du tàbbi su ñun tayal du tàbbi su ñun parce que sénégalais tayal na liggéey tuuti lañ siy def wax lu bëri lañ si def <laughs> onaat a beaucoup de temps à perdre ñu ngi toog di wax du ñu def dara ba jiital si réew mi ku nekk si ñun bu doon jël benn heure di ko defal Sénégal gratuitement li si des ñu fay la ko ñu jël mhm. mais kenn du ko def mhm. donc defuñu si ñun loolu amuñu culture boobu mhm. waaw mais loolu noonu dama gis ne mbëggeel boobu sa réew waaw dañ ko war a tàggat si nit ki waaw en première position dañ la war a xamal lan mooy sa réew xamal la yaay kan fan nga bàyyeekoo. jox la ay modèle dafa mel ni man jamono bii ndaw ñi. ndaw yu bëri amatuñu modèle ci biir réew mi. ñu ngi jéggaane wala boog bu ñu amee modèle. ñu ngi jéggaane du yi gën. du duñu sax ay modèle c'est des contre modèles. lañ jël fi érigé leen en en modèle. ñii ay star lañu ñii ay mbër lañu. ñii ay woykat lañu. poojkat taaxuraankat. te ñii duñu ay modèle ñii ñu ngi defar dëgg. diingatuñu mais. waaw waaw man dama contre ñëpp mënuñu nekk waykat man dama contre loolu ñëpp mënuñu nekk mbër mhm. ñëpp mënuñu nekk footballeur ñëpp mënuñu nekk saa il faut am ñuy dem di liggéey lu pratique Mm-hmm. di bay mm-hmm. maçon mm-hmm. Euh, yi nga xam ni dafay dafa c'est du concret dañ koy gis du forek mooy mooy àddina dëgg la voilà donc nga ni dañ leen si war tàggat donc ku ñu xamalu yaay kan te lii dafay laat encore l'école encore une fois absolument les programmes scolaires euh, ñu tal sax euh, ateliers yi nga war def loo école ñan ñoo la war a jàngal ndax ñu bëgg man maa ngi gis ay ay enseignants yu bari primaire wax dëgg yàlla bëgguñu jàngale mosuñu xalaat nekk jàngalekat. amuñu pexe. dañoo amul choix kese. xaaral dem nekk vacataire. c'est alimentaire suñ koy def vraiment c'est pas avec le cœur. Mm-hmm. dañ koy def nii rek pour mën a am as bu ñu mën a bu ñu mën a dimbalikoo seen njaboot. Mm-hmm. kii man gëmma mu transmettre lu am solo ay xale. te jàng bu njëkk boobu dañ koo xeeb rek ñu bëri ñu ngi xëccoo université ak lycée collège mais primaire mooy jàng bu ëpp solo. di nga borom xam-xam yu yëngu ci wàllu xel. Mm-hmm. nañ xale. Euh, ba muy am deux ans. Ah. ba muy am sept ans. Hmm. Euh, lépp luy nekk ci moom. si personnalité éponge fa lañ koy defaree. Ah, nañ ko def lu bëri boobu bu la rëccee. Hmm. jeex na sa personnalité. on la fa lañ koy defaree ko ba pare forcé ko ba pare. Ah. leneen lépp la ay détails rek la. Hmm. foofu la nekk. foofu nag moo tax bu yàgg ba kilifa yu diine yi doon wax ni jox leen ma seen ndaw yi ma def si ñoom yàlla. donc xale bu am deux ans trois ans nii yóbbu ko jox ko daara. jox ko ndongo ñu tarbiyee ko parce que sànq yaa ngi wax lu am solo. mooy gars yi ñu doon jàng alxuraan. c'est vrai que jàng alxuraan lu am solo mais dafa am lu ëpp solo jàng alxuraan muy tarbiya bi maanaam ndax ñu ngi lay yar ci alxuraan mm-hmm. ndax mokkal alxuraan mm-hmm. euh, jëfee alxuraan moo ko gën mm-hmm. euh, di tari alxuraan xam alxuraan moo ko gën absolument donc yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba mu ñëwee andi lislaam sax toog nañu treize wala quinze ans yoo xam ne euh, ans d' abord bi nga xam ne kenn julliwul islam bi amul woon julli amul woor amul natt azaka amul aji maq on travaillait ce appelle le ak aqida on travaille sur les relations humaines ci mm-hmm. mbaax mm-hmm. ci bañ a fen mm-hmm. ci bañ a loraate ci nekk njëriñ ci respecter ci fonk lu ñëpp bokk pourtant lii yëpp mooy citoyenneté donc lii yëpp daf ko inculquer saxaaba yi te man jàpp naa ni foofu moo am fayit aujourd'hui euh, ñun dellu ñu suñu moom dañoo nekk di toppandoo très mal nag lu kenn moom ndax li ñuy toppandoo wax dëgg yàlla si dëkk tubaab bi mën nga loolu réalité tubaab bi sax ay citoyen lañu ñoom ca fan dëkk dëgg la ñu bëgg seen réew effectivement li jëriñ seen réew ñu génn dëgg ñun bu leen royoon si côté boobu macha allah lay doon mais roy nu loolu ñun mm-hmm. dafa mel ni li gën a bon rek la ñuy mm-hmm. roy si tubaab yi mm-hmm. malheureusement fii moom bañ na ko ba boo fi dëggoo ñu ne dafa tubaabe boo setee ñu ne dafa tubaabe boo bëggee sa bopp di xeeñ ñu neex set mel ni nga war a mel ñu la dafa tubaabe donc ñun pour ñun tubaabe loolu la mais donc ñun ñooy kan ah, euh, duñu dara à peu bu ñu déggee si nu ñuy waxee ñun ah, euh, sunu temps mi ngi bëgg a jeex mhm. mu mel ni temps yi dama lay gis ngay wax lu bëri ci actualité bi nga xamante ni mhm. mooy def euh, ni ngeen koy waxee yéen le buzz sur le net mhm. muy la nouvelle ville commandé nga fa sa kii sa ñaan ma yàlla <laughs> wut boobu man dama la faa bëgg a wutal kër ñaan ma fa yàlla ma lay seeti man xam naa ne aw ma moyen dëkk ah, waaye damaa bëgg yow boo fa dëkkee ma lay seeti bugguma sax yow nga comme man comme man fi mu ne nii nee naa maay sa taalibe numéro ah, un man bugguma sax nga dëkk foofu <laughs> foofu moom dama jàpp ni musiba la xam nga foofu yaa seeda au <laughs> uh-huh. euh, delà sax de l'aspect uh-huh. euh, maa ngi gis dama si wax ñu bëri nañ damaa iñaan damaa iñaanee icône hmm. te yàlla xam na ni Euh, Akon mënuma ko iñaane mhm. ndax Akon euh, woykat woykat la bokk leen fi ngeen di jëfee moom day day woy di jaxase doomu aadama yi ñuy caaxaan mm. man li muy def noonu ñaan moo ko yàlla def Akon bu duggoon sama kër sax bëgg sama doom soxna du ma ko may ndax nawloo ma ko pour may ko sama soxna góor bu bëtt ay jaarom si dëgg la góor bu bëtt ay noppam man dama ko jàppewul nawle ndax kii mënul jiite jumaa su ko yóbbee mënul nekk imam donc man euh, wax dëgg yàlla lii du ki ñaan du soxoru dara mm. mais dama gis rek ne lépp luy projet bi nga xam ne mu ngi fas yéene ñëw dugg ci réew mi moo xam école étrangère la moo xam projet de ville étrangère la bi nga xam ay étranger war a ñëw dama ne yell nañu toog xalaatat xool ñan ñoo nar a ñëw ñan ñoo bokk ci mbir mi ndax Econ amul alal bu mu defaree euh, projet boobu li mu wax amul xaalis boobu mm-hmm. ñu ko ëpp xaalis mu ngi États-Unis ñoom GIE ngi fa mm-hmm. amuñu xaalis bu ñu a tabaxee benn ville pour ñoom tout seul ak lu mu làmboo taleek mm-hmm. c'est que ville du kër coow li mooy qui sont ses partenaires man loolu laa njëkk a posé comme question ne gars yi nañ dem lijjanti ji ñan ñooy partenaire Akon ndax man partenaire Akon si xam ñu bëri mhm. man Akon dèjà mhm. euh, dama gis ñu bëri xam ne si ñooñ ñooñu lay liggéeyandool Akon moo wax ne moom investissement am lii moom ay waxam la mhm. mu ne moom fi muy investir Nigéria sax que Sénégal ndax Nigéria gars yi il parle l'anglais te l'anglais langue internationale donc Akon maison de production am ay Nigérian la ëpp li muy produire produire benn Sénégalais Akon du bokkul ci doomu Sénégal yu am njëriñ yu amal njëriñ Sénégal ñu mel ni góor gi Dieng basketteur kooku am njëriñ la ñu mel ni ñoom Sadio Mané ak ñëpp wax dëgg yàlla dañoo am njëriñ dañoo gis Sénégal et kon te xaalis boobu boolew ci valeur amul valeur ndax ku mën a def woy futti jigéen bu mu desee ab ab ab bu ndaw kooku valeur man yu ñuy wooye ñun yu ñuy wooye Sénégal valeur yooyu ko donc dëkk boobu nag déjà man aspect économique dafa nar nekk zone économique spéciale zone économique spéciale lu muy tekki déjà dafa nar a woo ay entreprise yi xam ne ñu mu nar a bokkal liggéey bi ay étranger lañ ay entreprises étrangères yu nekk États-Unis parce que projet bi yàgg wax avant école sax di ko wax. Mm-hmm. man xamoon naa ni dafa bokk ci stratégie américaine euh, ut ay promoteurs de ville pour mën a may entreprises américaines yi ñu mën a am mise dans des pays yi xam ne France ak Angleterre dañ ci teg loxo. ndax ay anciennes colonies françaises ak euh, Angleterre te États-Unis dafa am projet ci Afrique comme nu Chine amee projet ci Afrique donc pour am pour dugg nag dans l'Afrique. il faut des villes euh, spéciales yi nga xam ne entreprise dañu mën a dugg foofu ba pare am ay franchise fiscale ah, euh, dëkku écone bi entreprise yi fa nar a ñëw yëpp am nañu droit bañ a embaucher kenn comme sénégalais. Mhm. mën nañ toog def CDD am mën nañ su doon neexee ne joxe wu ñu CDI. Mhm. muy benn dañuy am droit am franchise fiscale maanaam dañu am exonération du fay impôt pendant vingt cinq ans et c'est renouvelable. Hmm? ñu fay impo Euh, li ñuy wax IMF impôt minimum forfaitaire entreprise yi am nañ droit duñ ko fay. Euh, impôt sur les sur les sur les sax dañu leen defal réduction bi nga xam ne le droit sénégalais entreprise sénégalaise yu nekk fii Sénégal ils paieront plus d' impôt entreprise américaine yi war a ñëw si zone spéciale boobu. donc lii yëpp c' est des questions économiques yi tamit dañ ko war a xool mu taxaw bëgg lancer benn monnaie tuddee ko Acoin. Hmm. monnaie boobu déjà il a cherché des des des d' autres pays yu nekk si yeneen gox yu def même projet comme moom. Ah, kon ñoom cryptomonnaie la Acoin bi. mais mais kii boobu moom moo ci nekk. bosam la ça s' appelle Acoin. Ah, donc cryptomonnaie yi moom ba dafa nar a utiliser le protocole Bitcoin bi nga xam ne avec benn protocole bi ñuy wax euh, a am benn interactivité avec toutes les ah. euh, tam bu nekk fële ca Nigéria ak ca Kenya. ñii ñu ngi bëgg taxaw benn réseau bi nga xam ne sur le de quelques dizaines de du suñuy loi sax ce son des états dans nos donc léegi nag man su quelqu'un bëgg am projet état dans l'état du Sénégal. man daf may interpeller directement. ndax man war na noo tiit. ñun ñëpp war na nu laaj lii lan la. ville boobu ce sera pour des riches. c'est pas pour des pauvres. ville boobu ñu fa nar nekk c'est de grands investisseurs yoo on parle d'île artificielle on parle de casino on parle de bërëb de loisir ñan ñoo fa nar ñëw mhm. bu dee le showbiz américain la mhm. milieu bi nga xam ne prostitution la ak milieu drogue ak milieu góor jigéen ñett ñi ñoo gën a not ci biir Hollywood li moom vraiment c'est pas un secret suñ koy wax mhm. donc le dafa lii ak ak ak les milliards moo nekk foofu bu dee ñi ñooy partenaire am wax dëgg yàlla te ñun amuñu temps i ñaane Akon Akon dañ ko yërëm sax Akon hmm. dañ ko bëggoon ñaawal sax mu bàyyi li mu nekkee ndax li mu nekkee baaxul mais ministre bi moo toogoon de bi muy def ki waaw xam nga ministre bi moom bu ministre ñëwee toog mhm. validé mooy ni mhm. maanaam lu war a baax la pour Sénégal xam xam nga ñun suñu dañoo am yàlla dafa ñu nattu nguur yi nga xam ne hmm. euh, ñoom intérêt Sénégal dafa mel ni ñoru leen si biir papier hmm. contrat yi si yëpp ba ci contrat pétrolier contrat gazier contrat yëpp Sénégal moo siy gaañu liñ ciy am matul 10 dañoo dañoo tàmm te lii c'est une constitution coloniale dafa yàgg avant bien régime bii la maanaam depuis l'état post colonial bi xam moo fi ñëw en 1960 dañ ko tëral ci tëralinu benn colonie rek maanaam ni ñu doon doxee ak France noonu lañ ko ne doxee baax dañ ko jox tubaab bi lépp lu ñuy bàyyi fii lu baax dañ ko jël exporté ko yóbbu si dëkk tubaab bi lépp lu si yu nekk fii bay xaal ak ne remplir bu ñu trier mooy triage loolu lañ tuddee ko jox baax mucc ay bi ñu jël ko génnee ko c'est que dañoo tàmm benn régime d'exploitation bi nga xam ne lépp lu baax c'est pour l'étranger lépp lu bon c'est pour vous foofu suukar bi kazaalika gerte bi kazaalika lépp lu ci baax gerte trois doom yi yu ngande yi saalum defar sénégalais fii duñ ko lekk xamuñu ko donc donc ñun on a des autorités yi nga xam ne wax dëgg yàlla ñun xam nañu liggéeyaluñu mm-hmm. ndax euh, contrat yi ñu signé man dama jàpp ni si dafa nekk si désavantage yu Sénégal moo tax man ministre toog bi mm-hmm. ba tey wax dëgg yàlla dalul sama xel mm-hmm. et kon nag euh, projet crypto boobu muy lancé man dama man crypto euh, dama ci def thèse donc pour dire lu ma Euh, ku mel ni ñoom Lynn Liss ñoom John Karas ñoom leen xam bu baax États-Unis ak lu ñuy liggéey donc man nekkuma di wax Akon en tant que tel parce que Akon intéressé wu ma euh, dama def le point le point rek entre ville bu mu bëgg taxawal ak projet nouvelle ville yi lu ñëpp xam la euh, neewam mu ngi fële Arabie Saoudite lan moo xew neewam neewam ki ko samp te doxal ko mu ngi tudd Mohammed Ben Salman moom mooy prince u Arabie Saoudite jullit la yéeféer la du jullit franc ndax moom mu ngi membre la si benn euh, groupe bu ñuy woowee Skulls and Bones donc group boobu nag ñoom ñoo am projet wu defar ay villes yu bëree bëri yoo xam ne euh, xam naa ne loolu dina laaj beneen débat pour ñuy wax villes yooyu pour lan la mm-hmm. mais ñu jàpp ni neewam projet la bi nga xam ne moom mu ngi ko def ci frontière Jordanie bi euh, ak détroit africain bi fu mu ko def exactement foofu la yoon ci Yàlla Moussa nekkoon ak xeetam ba ñuy jaamu nag boobu nagu or boobu mm-hmm. donc l' endroit est mm. mu créer endroit boobu ne endroit boobu bokkul màq mu def fa ay centre de loisir ay boîte ay bar nee na foofu charia daw fa. lépp luñ tere biir màkk lépp foofu mën na foofu. ok euh, màkk nga xam ne sax du ñu jox nationalité doomu aadama na màkk soo ko defee 10 ans la jox nationalité. soo takkee saoudienne doo am nationalité. boo fa juddoo tam doo am nationalité. Mhm. waaye ñoom créé nañu robot. bu tudd Sofia di jox ko la première nationalité saoudienne à un robot li ça veut beaucoup Salman boobu moom ak Mohamed Ben Zayed. ñëpp ay alliés Israël lañu. Hmm. ba pare ay franc-maçon lañu. ma gis nag autour de Akon waxuma hmm. dara Akon ndax Akon su ma waxee. dañ may mere. en tout xam naa ne showbiz bi ñuy wax de de de entertainment industry maanaam showbiz Hollywood ñi nga xam ne ñoo fay star di nga di nga États-Unis mm-hmm. ku bokkul ci yenn kuréel yi. la haut niveau. du cinéma ak de ak ak de du business. wallaay doo fa yegg ay secte lañu bokk doo fa yegg donc euh, c'est vrai que Sénégal moom. Mm. ñoom dañoo ñu si bëri dañoo bañ a yeewu. ku leen di tant ñu dañuy def suñu rôle kese. ci ci alerte da ngeen di alerter dañuy alerter kese. néewam boobu nag. Mhm. Euh, musiba gënu koo ngand ci biir ma te lii xaddis la benn seesam waxoon. waxoon na ci xaddis ci li nar def foofu. Mhm. donc man gis naa sa projet la mhm. Sénégal kese moom ko. projet bi Sénégal Econ moo ko porté sa même projet la am na Rwanda am na Kenya am na Maroc am na Nigéria. am na Afrique du Sud am na Angola euh, projet bi du projet Econ Econ projet projet lumière la woon mooy. Euh, solaire électricité. projet la ci àndoon moom ak Thion ñaa ak beneen waa malien bi xaw ma lan jaxate. Euh, ay turian rek ñëpp c'est des trafiquants de personnalité ñoom ñëpp. donc lii mooy projet projet ville bu bees bii du projet Econ ay promoteurs yi nga ñoo nekk ci ginnaaw Econ te ñoom ñoo ko bëgg doxal ñii ils veulent de Econ un président du Sénégal li fi laa ko waxee. Mm-hmm. nañ mm-hmm. bi li mu suñ ko diviser diviser waat ko diviser ti ko Akon amu ko donc ñun suñu war lu ñu war a focus mooy qui son les partenaires de Akon dans ça ak ñoo ñan lañu ndax quelqu'un bi nga xamee damay joxe exemple bu ñu amee école man dama contre école française yi fii Sénégal dama ko contre pour la simple et bonne raison que l'état français dafa daganal góor jigéen changer ay programme am di jàngale góor jigéen xale yi à l'école euh, française primaire dañ fa tere déjà papa et on a changé le programme pour tuddee ko parent un parent deux parce que prépare l' enfant xam ne mën nga am ñaari papa mën nga am ñaari yaay. Hmm? donc lii c' est des pays yoo xam ne qui ont déjà articulé des changements seen biir programme pour préparer seen citoyen mooy li nga sànq rek le citoyen école moo ko war hmm. ni ñu bëgg citoyen bi mel moom la ñuy jox commande école pour mu pour mu defar ko hmm. donc dëkk yooyu kon bu dee ñoom dañoo nangu góor jigéen Euh, seen école ñoo implanté fii war a jàngal suñu ay doom même programme boobu man dama jàpp ni c'est très grave mm-hmm. ndax ñoo nekk di former ay jeunes sénégalais yoo xam ne on les a adoucis nangu leen góor jigéen te ñii bu ñu demee ba falu toog ci fu ñu war a toog mën nañ fi gaaw a dogal góor jigéen parce que dañu été formé ci jàpp ni dara nekku si c'est un choix c'est une liberté orientation sexuelle la mm-hmm. donc kon man dama am problème avec toutes les écoles étrangères yi nga xam ne dëkk yi programme yooyu programme yooyu pro si dugal lu lu doy waar dama am tamit ak tous les grands investisseurs yi xam ne dañoo bokk ci ay kuréel képp ki nga xam ne góor jigéen la bu leer wala képp ki nga xam dafa bokk ci franc-maçonnerie te loolu naa si wax xam naa naa si publier ñu bëree bëri ñi nga xam ne c'est des francs-maçons ay illuminati lañu dañoo ay partenaires école lañu ñii c'est des gens yi nga xam dañoo assumé am yu bëri ci pédophilie ci trafic u xale ay xale du benn du ñaar léegi ñoon suñu nangoo ñooñ ñëw implanté au Sénégal def fi ay nganti entreprise ces grands vicieux là quel en sera léegi après xale Sénégal yi donc quel en sera après est-ce foofu du nekk capitalu prostitution au Sénégal sax est-ce que duñ ko ubbi sax may góor jigéen na ñëw fii parce que fii c'est voilà c'est un état dans l'état ñu ngi nekk surtout géej gi pied dans l'eau war a defar ay îles artificielles du am benn contrôle. ci mhm. état Sénégal am nañu seen aéroport am seen i port ah, seen seen keew yëpp. ils ont tout fait sax pour am seen propre seen propre monnaie bi nga xam ne sax dañu hmm. bëgg l' l' administration de la ni may seen activité ñu mën ko doxal mu leen neexee sans amendement sans contrôle. Hmm. donc man lii hmm. les Sénégalais pour man on doit poser le débat sax économique d' abord. ak le débat social. sociale ci lan mooy implication sociale ci dëkk boobu ci biir Sénégal. Hmm. donc man wax dëgg yàlla je suis depuis le début du projet d' accord ma Akon City tey d' accord ma ko ëllëg hmm. yàlla bu mu fa dëkk nag. Hmm. ñaan ma fa yàlla am fa dara <laughs> euh, so encore une fois soxore ko sax soxore <laughs> waaye projet bu mu am moom su woon moom sax même tubaab bu amee projet bu Sénégal je suis contre projet. Ah, ndax man dama jàpp ne nit su loo xam setul. waruñu ko bàyyi muy maa ngi gis nag ñu bëri nag. Euh, ñu ngi tàcc naan waa macha allah dafa ñëw defar Sénégal mais c' est pas Akon de nous aider Akon n'a jamais aidé le Sénégal sax Akon capitaliste la ñun ki ñu war a aider mooy l' état du Sénégal bu ñuy voter chaque at budget ci assemblée nationale jox ko ay milliards et milliards lépp 4000 milliards ne ko liggéeyal ñu bu amee tali ñu war defar moo ko war defar bu amee lamp ñu war defar moom moo ko war defar bu amee lu ñu war a change programme scolaire yi moom moo ko war defar wax dëgg xaar ñu avant ñuy dugg ci mbiru góor jigéen ak franc-maçon loolu xam naa benn débat la ndax man saa yoo ma xëy ne man franc rek laay wax mhm. waaye nañ xool zone économique spéciale déjà sax mais mhm. pourquoi ñu war am ay zones yoo xam ne on aura une centaine wala presque deux cent à trois cent entreprises yi nga xam mhm. ñu fay benn impôt. Mhm. ils seront là chez nous di opérer. Mhm. am nañ droit bañ a embaucher. am nañ droit bañ a fay yenn yenn fiscalité yi le cordon doyen ñu koy dindi pour ñoom. donc man lii pour man wax dëgg yàlla. loolu de boo koy xool c'est pas une aide pour le Sénégal defe naa ni. contraire kuy def ci poosam lay. gën a nëb bëgg nañu nag jeunes Sénégal ñëw. bokk defar mais. poosam lay def. Mhm. daanaka comme ni nga ko waxee c'est un état dans l'état. kese balaa nu koy def war nañu war a jël le projet nag jox ko benn structure bi nga xam ne saay-saay gënu leen mag muy KE international mooy war a yor tabax bi matériaux yi ñu ko war a tabaxee ak ñi ko war a tabax yëpp maanaam ay américain lañu hmm. maanaam du suqali. le BTP sénégalais du suqali la vente de matériel ciment yi du suqali dara maanaam lii dafa amul impact maanaam on perd trois fois ñun donc lii man pour man gisuma pourquoi ay sénégalais si jubilé ñi si jubilé peut xam naa ne ñoo xamul li xew rek waaye bu ñu xamoon lii mooy modèle chinois bi chinois dañuy ñëw lebal Sénégal xaalis ba pare andi seen ay propre entreprise yoo xam ne ah. ñoo ko war a tabax mm-hmm. ba pare andi seen matériel ba ci puso duñ ko jënd fii Sénégal maanaam suqaliwul dara ci état Sénégal mm-hmm. jox marché bi seen entreprise bu ñëw tabax ko li ñu jox yëpp daal maanaam ñoom ñoo koy jëlaat ñoo koy jëlaat ba pare ñu ameel leen xaalis nag waaw doy na waaw ah, ñu ameel leen xaalis mu mel ni doy na waar je pense que suñu temps bi normalement war na mën a jeex mhm. euh, dégguma régie bi wax dara mhm. ndax waxtaan wi neex na ba nga xam ni mhm. yow moom booy wax mën nañ la bàyyi fii ba suba <laughs> ñuy relancer rek ngay dem macha allah macha allah <laughs> ndax waxtaan wi day am solo euh, mu mel ni su ma la bàyyee rek euh, pour ñu tëj macha allah nga wax ma rek lan lan war a def nag ngir tëggaat citoyen bu bees comme ni nga ko waxee woon nga ñaaxaar rek mhm. ndaxte nag macha allah mhm. sénégalais dëgër na bopp mhm. sénégalais am na temps on perd trop de temps comme nu mu ko waxaan sànq sénégalais bëri na yoo xam ni on vit au-dessus de nos moyens y a de choses comme ni nga